waaw yàlla na isaar Mor Yacine Ndaw Tivaouane commerçant waaw ministre bi ba mu ñëwee wax nañ ko na ko stock bi doyul sable toit bi itam débale ko ne ko léegi instant yi nag euh, am na ñetti conteneur yoo xam ne na léegi nii quoi ñu ko war a déserté nii quoi ñaari conteneur soble ak benn pomme de terre non mosul mel nii lii lii euh, lii mosul mosul am quoi c'est la première fois quoi gàmmu mosul nekk am nii waaw mosul nekk prix bi exactement soble bi ñu ngi koy jaayee bu tubaab bi ñu ngi koy jaayee vingt mille pomme de terre pomme de terre ñu ngi dix neuf mille quoi soble ak de terre daal moo manqué mais pour le moment nag mu ngi ñëw am na yeneen conteneurs yi ñëw am na yuy duggaat si guddi nii tey incha allah euh, ministre bi lu mu waxoon dëggal na ko quoi def na lépp ko quoi waaw waaw waaw lu mu waxoon def na ko daal ñu ngi koy remercier quoi lu def na ko quoi waaw ñoom ñëpp tout naa ngi ñëw soble bi yegsi na quoi bu soobee yàlla soble bi moom ku fi ñëw da nga ko fi fekk incha na quoi mais nag xam naa lu mu commencé génn tax mais dana dana kii quoi dana gën a wàññeeku quoi waaw d'accord Thank you.